dama doon expliqué benn anecdote bu yeggul ma leen sàcc bi sàccoon ba gis benn miir bu gàtt ñu koy dàqe mu daw dugg ci miir bi ndeke dañoo gas ci taatu miir bi teen mu dugg ci teen bi xam nga teen loo jox day aw miir bi taw jeex mu naan waa bii miir a gën a xóot xóot xóot xóot xóot yegg ci suuf foofu am ndox mu naan ma wax muy taa taa taa taa taa commencé rëccu naan sama yega yega yega yega ne fi laay mujjee mujjee mujjee histoire boobu cinq juillet grand Abasio Dakar MDR ci laa koy nettale <laughs> yow partenaire bi yow sponsor bi yow la ñuy xaar pour affiche bi commencé ko taf ci mbedd mi yow la ñuy xaar pour panneau waaye yow la ñuy xaar pour spot yi war a daw à la télé sur les télé sax lay wax ak réseaux sociaux yi donc gaawal gaaw gaaw gaaw Abasio 5 juillet au Grand Théâtre ndaw lu <laughs>